que que ngi ci wàllu fekkee waaw dafay jàppale leen lii nga xam ne tey le président Macky Sall que ñëw ci ay fonds propres mu naan def tool yi toll ci près de 40 milliards ñu war ko injecté fii tey ci que Touba. même en relève de réalisation yow que les les éducateurs siiw rek Sall yàlla nga àggali si yéen jar na ko de ci Serigne Touba xaadim borom nit ñi maam si Sidi Mokhtar Mbacke maam si Serigne Bassirou xaadim Awa ba muy taxaw waaye maam si Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadre mi nga xëy na moo yor ndigal li tey ah président de la République. allez-y allez-y muuf rek réglez un peu. Ya açı var, açı açı. Allez-y, allez-y les gars, def leen nii. Bu sottee nii lay mel de 300 lii lay doon. ci kat li mu ci gën a neex. géontologue yi nga Ah, mo ni banya dekh gare no ho.